auzu billahi min asheytaani irrajimi bismillahi rahmaani rahim wajaal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawir waxal bi arsida mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonentam bu tedd ba ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaar di leen baalu àq te di leen baalu àq ci weer wu tedd wu màgg wi nga xam ne moom la ñu jóge te mooy weeru yërmande di weeru xéewal di weeru tedd muy weeru saaru ramadaan di ñaan yàlla suñu boroom defal ñu ci tawféex te di leen baalu àq bu baax a baax te di leen baal àq di ñaan suñu boroom mu boole ñu baal santaat yàlla bu baax a baax baax baax ci moom mi ñu may ñu mën teew ci bërëb bii di fi laabirante ci waxtaan yoo xam ne amaana ci liñ koy tënk rek mooy jéema jariñe di wax ne sax lott nañ lool ci jàkkaarloog suñuy kilifa di yëkkati ay kàddu waaye ndigal moom kenn mënu koo xëtt te bu jibee rek def ko moo war ñu bëgg koo tënk rek ci lu gàtt te mooy fii jamono ji tollu ndax ku ne xam na ne toll nañ ci jamono joo xam ne waxtaanee ko jot na imma ci lu mel ne yàqu-yàqu yi nga xam ne moo am ci réew mi ba ñu baree bari sax dem bay jaawale yu baree bari yoo xam ne bokkul te li ko waral mooy ñàkk xam suñu bopp waaye muñ gi ñu waroon te ñu tële ko te tubaab di ko wax patience muy loo xam ne it lu am solo la ci dunduk doomu aadama lu am solo la it ci jëmmi doomu aadama te nit ku ne it war koo bàyyi xel te mooy muñ bu ñu ko waxee it ñi ca jiitu ak ña ci ëpp doole mooy ndaw ñi nga xam ne jamono ji toll nañ ci buntu àddina te muy àddina boo xam ne jamono ju naqaree dund la waaye jamono ju naqaree waxee la ndax eh, saa yooy wax rek nit ku ci nekk ak na koy gisee waaye saa yooy jëf itam nit ku ci nekk ak na koy gisee waaye li ëpp solo rek mooy nit ki moom ak lu mën a xew li mu war a def rek na ko def li ko wóor na it daa dox ci diggeem ak boromam subhaanahu wa taala te daray caaxaan nekku ca it maanaam na ko matal bu mu xool ku ko cay teewlu mbaa ku ko teewluwut wala ku ko ci dul bàyyi xel wala ku ko cay bàyyi xel wala sax ku ko cay xalab mbaa ku ko cay tagg li ëpp solo rek mooy wareef la woo xam ne danga ko koo war a def nga matal ko ngir jëmmi yàlla ngir yitim kàddu gi nga xam ne daa war a jib saasu ne te muy kàddu dëgg bu ñu waxee muñ yitim mën nañ cee tënk lu baree baree baree baree baree bare surtout ci suñu jamonoy tey jii ak ni muy doxee nga xam ne mën naa wax ne boo xoolee parfois ba ci seytaane sax li muy doy waar doy waar doy waar fi mu ne ku ku ku mën a ku mën a teewlu la ku mën a bàyyi xel itam li mu bëgg la kuy waajal boppam la it ci lépp ndax bu ñu waxee ne suñu maam aadama seytaane taxaw na ci bunt bi di leen xaar ñetti téeméeri at ngir mën a buruxlu rek pour dugg ngir yitteem jooju nga xam ne du koo bëgg a matal te mooy la mu waxoon borom bi subhaanahu wa taala ngir yàqal doomu aadama yi ngir jëlee leen ci teraanga jooju nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala moo leen ko defal nga xam ne yitteem moom mooy nay yàq rek moom fi mu ne bu doon bu dul woon ku ku mën a xaar sax day day day day dem waaye toog na fa ci diggante bu gudd ngir lan ngir loolu mu bëgg daal ci ci jaamu yàlla boobu suñu borom subhaanahu wa taala moom nu mu mën a def ba am ko rek dana ko def te du bàyyi dara waaye du xaar dara ci doomu aadama ba dara ba doomu aadama di ko am moom lu mu mën ci doomu aadama ngir yàqal ko rek dina ko def te bu ñu xoolee tawféex ji nga xam ne suñu borom dañu ko defal ak ndimbal li nga xam ne yàlla dañu ko defal ci suñu diggante ak moom mooy suñu boroom bu ko tegee natt boobu mu ko teg ñun jëmmi doomu aadama yi moo tax mu teg ko ko ndax keroog ba nga xamee ni bind na doomu aadama wa is qaala rabbuka lil malaikati inni xaaliqun basaran min salsaalin min ama in masnuunin fa isaa sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuhi fa qamu lahu waaye fa sajada al malaikatu kulluhumu ajmauna suñu boroom bu bindee doomu aadama wax malaayika yi ñu sujjootal ko moom la tax borom bi li tax suñu borom teg ko loolu mooy sujjootalal sama jaam bi ak réyam tax mu teggi loola yàlla génnee ko ci yërmandeem ngir jëmmi doomu aadama waaye day mel ne fi mu ne sax doomu aadama yooyu ci seen réere seen borom dañoo dem wutali jëmm jooju nga xam ne yàlla da ko alak ngir ñun ñu fàtte teraanga ji nga xam ne suñu borom defal nañu ko ndax alagam ci ñun la bàyyi ko ngir réy goo xam ne amal na ko ci diggeem ak boroomam kon doomu aadama wurte jël kooku ànd ak moom walla kon ak gàtt xel dëgg dëgg lay doon moo tax parfois dama koy wax ma ne nit ñi parfois dañuy jàppe ki nga xam ne euh, dafa yor ay sagaram ñu ne kii wérul wala kii maanaam dafa dafa dafa dof kooku yàllaa ko teg nattu xelam dem waaye ab dof dëgg mooy ki nga xam ne suñu borom defal na ko tawféex yi mu juddu doon ab jullit bokk ci njabootu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye ëlbatikuwaa toppaat ki nga xam ne yàlla da koo alak ngir ñoon maanaam loolu moom weesuwul ak dof loolu it weesuwul maanaam topp li nga xam ne sa su bakkan lay doon te mu lay yóbbu ci loo xam ne ak loraange képp lay doon ci yow kon jëmmi seetaane moom bu fi mu ne li muy li muy li muy li muy doy waar li muy doy waar maanaam ku ku ku ay mbiram da ciy xaar bu baax a baax a baax a baax a baax lépp lu mu bëgg yit da cay def lépp lu mu mën ngir jot ca loola ngir yàqal doomu aadama yi da daan ku daan waxtaan la ak yonente yàlla yaxya bis mas nay wax ak moom mu daan ne ko Euh, ndax ñun mën nga ci ñun dara mu ne la yéen yàllaa leen ñàkk moo tax mën mënuñu ci yéen dara waaye yow daal xam naa lenn moom xam naa ko ci yow mooy saa yoo lekkee ba suur rek maanaam sag jaamu yàlla day wàññi moo tax damay fexe ba ngay regg ngir naafil la yi nga doon war a def ci guddi gi maanaam muy mën a wàññeeku nga xam ne moom fi mu ne ba ci yónnante yi sax bàyyiwut lu mu mën ci ci yàq rek ak lu mu mën ci ci ci ci tilimal maanaam woote boobu nga xam ne suñu borom da koy wooteloo dina fexe ba def ko kon kooku ku bàyyiwul ñooñu waxuma la ñun doomu aadama yi nga xam ne euh, daa war ci ñun ñu julli woor daa war ci ñun bàkkaar war ci ñun jaamu yàlla war ci ñun tuub war ci ñun jéggalu suñu borom war ci ñun jaar fi nga xam ne moom la ñu suñu borom subhaanahu wa taala jaarloo it war ci ñun kon bu dee jëmm jooju noonu moo amee noonu patience waxuma la ñun doomu aadama yi nga xam ne nag dañuy dund ci benn àddina te àdduna boo xam ne mën nañoo wax ne rëy na ci suñuy bët waaye lu tuuti la ndax diggante bii nit ki di dundee ak diggante bi muy faatoo diggante bu gàtt la diggante it bi àdduna di am ak diggante ba muy jeexee diggante bu gàtt la diggante bii nit ki di manee ak diggante bii nit ki di mën a mën a diggante bu gàtt la ndax bi ngay judd it mënaloo dara sa bopp nit ki bi mu ñëwee dañ ko waajal taxawu ko defar ko amaana ñu di ko tette di ko di ko defal lépp loo xam ne war nañ koo defal tout tànk kon kooku mënul woon dara boppam waaye am na it ci diggante bu gàtt boo xam ne suñu borom dina la jox ak man waaye ci man googu nag am na lu la war ci man googu suñu borom dénk la mooy mu bañ nga bañ koo rate nga bañ koo def ci loo xam ne neexul yàlla sa borom nga bañ koo def ci loo xam ne ëllëg dina doon loo xam ne du du bénéfice ci sa diggante ak sa bopp ci diggante boobu it ak mën di day dal di ñëw ndax parfois nga gis xale boo xam ne ku am kàttan lay doon ku am doole koo xam ne eh, day dem ba ci jamono joo xam ne sax day jàpp ne dara taw ko ci àddunaam waaye bis ñëw ñu laaj la ne la est-ce que borom doole ji moom moo nekkoon nii nga xam ne kon ak mën a di lu lu gaaw la ab taar yitim yàggul alal yitim woyul ak man yitim woyut ndax lu mu ci mën a doon rek bu la ko yàlla joxee na nga gaaw profitoo ca jaamu ci sa borom liggéeyal ci sa borom ndax wax naa ko ma ne doomu aadama wurul jël doole ji ko yàlla jox mu di ci jaayee doole nit ñi warul jël alal ji ko suñu borom jox mu di ci puukare woo warul jël yitim taar bi ko suñu borom jox mu di ko wan nit ñi lu ci mën a doon rek na xam ne bu ko yàlla joxee am na lu mu jubloo ngir jàngal ko ca loola waaye mën na caa jariñu waaye mën na caa jariña it waaye bu ca jubloo loru bu ca jublee bu ca jub bu ca jubloo lore moom moo cee mujj lore moom moo cee mujj loru kon lu la ci suñu borom subhanahu wa taala jox rek na nga fexe ba sàmm loola waaye nanga nga fexe ba téye loola te am na ku ñuy wax Nelson Mandela dund na ci prison 27 ans waaye bi mu bi ko yàlla génnee mu nekk président bi muy bind livre bi dafa wax ne maanaam ci diggante bi mu nekk ci prison bi li muy xat-xat ak li muy métti métti li muy yàgg-yàgg musta xëy maanaam te confiance am dolli ko wut na li muy sàkku ji da koy wut maanaam liy natt yi di bari ak liy coono yi di bari yëpp yëpp moom nee na mësta xëy maanaam jàpp ne moom li mu bëgg a jot moom maanaam da koy da koy ñàkk fi ne baykat bi nga xam ne day bay sax maanaam bu jëlee ji daal def ci ci suuf wóoru ko ba xam day ñor waaye lan moo koy dimbali mooy mu nangoo muñ xaar ba suñu borom ñoral kon lépp loo gis ci àdduna rek maanaam patience mooy tax nga man caa jot. am na ku ñuy wax George Lewis nee na xel mu sell bu doon ne am na lu ko gën a màgg li tax nit ki mën caa jot mooy muñ fi mu ne bu doon nee kër birig bi nga xam ne moo koy téye ba du màbbu birig boobu maanaam ci jëmmi doomu aadama mooy muñ doomu aadama mooy muñ ci doomu aadama. waaw boo xoolee fi mu ne xeetu parfum yu ñuy defar sax parfum ba la gën a yàgg fañ koy defaree rek parfum boobu bu génnee moo lay gën a seer moo lay gën a neex te it lañ koy jaayee du bokk ak njëg ga ñuy jaayee cent francs mooy yàlla bu la tegee ab nattu soo ko nangoo suñu borom dala koy teggil te bu la ko teggilee ban neexee day ëpp ba nga mujj fàtte nattu yow kon la la ciy dimbali nga nangu ko yonente yàlla yàqu ba suñu borom ñaata at la ko teg nattu. muy jooy doomam dem ba nga xam ne ne na lépp ba dëkkatul sax ca dëkkam ba ngir di xaar ngir di xaar euh, doomam doo ju Seydina Yuusuf waaye xaar googu ma ko doon xaar maanaam nattu bi nga xam ne nattu bi nga xam ne suñu borom da koo tegoon faaw mu nangu ko faaw mu nangu ko dékku ko yàlla teg ngir suñu borom da ko koo teggil nga xam ne keroog bi malaayika bi waxee ak moom ak bi mu taxawee ngir dékku loolu nga xam ne suñu borom da koo teg mu xam ne nag léegi yàlla rek a fi nekk fa sabrun jamilun wallahu almustaanu ala ma tasifun yàlla képp ko fi nekk su la tegee nattu it mënoo dem ci benn doomu aadama ba mu fajal la ko dul sa borom subhanahu wa taala ndax wéeruwaay boo mën a am ci àdduna bis bu daanoo yéen ñaar da ngeen ànd daanu kenn rek ngay àndal te doo mooy yàlla natt boo mën a am ci àdduna it bu ñëpp taxawoon ngir bëgg la koo teggeel te ca jamono jooja yàlla namul mu teggeeku du teggeeku kon nattu suñu borom a koy teggeel doomu aadama kon saa yu jaaxle ñëwee saa yu jafe-jafe ñëwee rek yow dellul ci ki la ko teg keroog ba mu ko nangoo ci la ko yàlla di di di dimbaliwaatee ay bëtam commencé ñëw mu commencé it amaat espoir pour mën a gisaat yow doomam jooju day mel ne it Yuusuf suñu borom nattu yam ko teg ci digganteem ak way juram lam war a dooni ëllëg itim foofu la war a jaaree ngir mu war koo doon ndax su nekkoon ne eh, jaaralewuñ ko foofu ay doomu baayam jëluñu ko yóbbu ko teg ko yenn fitna yi am ñu fa jaar jàpp ko ba mu demee nit jëlaat ko waaye ñu jàpp ne sax dañ koy defub jaam ñoom ñu defar ko faf faf def ko doom ba mujj ci ka ko def doom mu mujj moom lam doonoon mu mujj ko doon ko demee ne foofu ko suñu borom jaarale foofu la yàlla nam namoon ngir mbiram jaar fa pour li mu war a dooni ëllëg mu doon ko parfois nit ki mën na laa wax sax dara nga jàpp ne kii maanaam daf laa bëgg a yàqal wala daf laa bëgg a def lu la metti fekk ne moom jëf jooju muy def ci yow wala wax jooju muy wax ci yow lu ñaaw ak lu mu mën a doon rek na nga xam ne yow li nga war a dooni ëllëg moom moo la koy def dafa am doomu aadama boo xam ne maanaam kaddu moo ko eggale fi mu egg muy yow maanaam matoo li nga doon tey ci kàddu googu noonu mu taxaw ci tembu ngir jaayante ak boppam li nekkul woon ci moom mu boole ko ci moom ba ëllëg li mu war a doon mu doon ko kon nit ki bu mu bàyyi benn kàddu ba nit ki ba nit ba nga xam ba nit ki nga xam ne sax day ñëw si yow di la wax kàddu goo xam ne kàddu gu ñaaw la mbaa di la xalab mbaa di la wax lu ñaaw yow kàddu googu bul ko bàyyi ndax amaana yow kooku mën naa jéem a wax lu ñaaw fekk ne moom dalaa bëgg a dimbali te ko ndax ndimbalu doomu ah ndimbalu suñu borom subhanahu wa taala fu nekk lay jugee te ci jëmmi doomu aadama yi nga xam ne sax ñu ngi lay jéem a contour ci jëmmi doomu aadama yooyu noonu ci lay suñu borom di jaarale li nga war a dooni euh, yow li nga war a dooni ëllëg nga doon ko wax ne doomu aadama yii lañ gën a ragal moo gën ci doomu aadama mooy nattu ak wax waaw ba am ñaar yi moom saa yoo ko ragalee rek na nga xam ne ci jamono jii ñu toll moom mën a dund ci àdduna nit ki su bëggee dund faw mu sax faw mu saxoo ak yi di nangu nattu yi di nangoo muñ di nangoo dékku coono yi di nangoo dékku wax yi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 yàlla li lee di dogalam te kenn du dindib ndogalam aljana ak topp ca jëm sawara ak moye ca jëm ñaari barab yi boo ci jëm doxal di soobu am garam kon nit ki lu mu mën a doon rek il faut day day maanaam day day day jëm ca loola ngir mën caa jot te ñetti baat yooyu day ñetti baat yu am solo doxoo te bëgg a raw ku ne jëfoo te bëgg a am lu ne sonnoo te bëgg a gën ku ne maanaam nit ki mënta taxaw te loolu dañoo dal suñu jamono ji da ngay gis xale boo xam ne day nekk tànk toll ci liggéey daane damay xaar gouvernement bi kenn la ñuy bàyyi xel ne état du defar usine kañ la ñuy bàyyi xel ne état du ñëw ne la dama lay dama lay jox liggéey déedéet da nekk ci li nga war a nekk su mën nañ laa jàppale ñu jàppale la su dee mën nañ laa defal financement ñu defal la mais da ngay gis koo xam ne amul benn projet du métier du projet du benn xalaat waaye taxaw temm ne man tey a yor wala dañ maa war a jàppale nan lañ lay jàppalee da ngaa bëgg rek toog nit ñëw jox la 10 millions ne la liggéey déedéet demewut noonu da ngay dox jëm ca la nga bëgg yow su la wóoree ne tey damaa bëgg damaa bëgg place demal boo yoree ñaari junni wi nga yor bul ko xeeb bul ko xaar gàttum xel dëgg mooy di xaar doo di xaar mbir moo xam ne yow xamoo kañ nga ci jot du ci doomu aadama yi du ci kenn nag yàlla dafa bëgg jàmm bu dëgër suñu borom dafa bëgg jàmm boo xam ne day gëm li mu nekk ba pare waaye xam ko ba xam ko ba pare nag doo koo gëm ndax nit ki lum xamul rek mënu caa jëriñoo moo tax doomu aadama day dox ba pare nag ànd ak jëf waaw ndax mënoo ne da ngaa bëgg lii ba pare jëfoo. waaw jëf ja nag mooy su dee da ngaa liggéey tey nga yor aw 10 000 bis ñëw nga ñàkk 5000 ba dese 5000 bu mu tax nga bàyyi bu mu tax nga xàddi bu mu tax nga daw na nga xam ne suñu borom moomu la indiloon ñaari junni yi xañaat la junni bi moom mi la ko xañ mën na laa joxaat du ëpp ñaari junni ñun ñu bëree bari nag surtout ci suñu ndaw ñi lu ñu gën a tardeel mooy suñu bëggee mbir duñu ca taxaw suñu bëggee mbir duñu ca dëgër suñu bëggee mbir itam duñ ca góorlu maanaam dañ naan daal kut ku lii ñu bëgg dañ cee war a jot te mbirum àdduna sax nag daa wut noonu parce que loo fi gis rek day jaay loo fi gis ci àdduna day jaay waaw suñu borom joxewut lenn ci gratuit nit soo bëggee dara danga cay sonn waaye nga am patience maanaam nga nangoo dëgër ci li nga bëgg nga nangoo muñ nga nangoo dikk coono ya ca nekk te mooy baat ba mujj wax mooy waaye soo boo sonnul liitim doo mën a jariñu il faut da ngay nangoo sonn ca la nga bëgg muy neex nga nekk ca muy naqar nga nekk ca lu coono yi bari bari bari it nga nekk ca waaye bu dee maanaam yow benn yitte nga am muy yow bénéfice rek nga xaar waaye xaaloo xaaru xaaroo coono doo sa a jariñu adduna ñetti étape la étape bu njëkk bi étape ba ca topp ak étape bu mujj bi léegi su dee da ngaa bëgg jël étape bu mujj bi nag bëgg koo indi ci étape bu njëkk bi du sotti dangay topp ci say tànk fa nga war a jaar pour ëllëg li nga bëgg nga mën koo jot waaye su dee da ngaa bëgg jël li jiitu li li mujj bëgg indi ci li jiitu du mas a du mas a sotti te loolu mooy nit ki nga xam ne day jaawale ay bëgg-bëggam ak li ko war a jariñ ndax parfois doomu adama day yóotu loo xam ne day sori lool te fekk ne li koy jariñ mi nga ko jege waaye du xam ne lii moo koy jariñ mu topp li xam ne da koo sori te du ko jariñ mu jël loola fas yéene fas yéene jaa focus ne lii moo may jariñ te koy jariñ jege na lool ñu bëree bëree bëree bëri li li leen di jariñ mi ngi leen jege keroog ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di yéemu di yéemu ci waa ashabul kahfi suñu borom ne ko moo ne am na lu lu ko gën a yéeme nelawal nit ñetti téeméeri at am na lu ko gën a yéeme kan moo sàkk guddi kan moo sàkk bëccëg ñun fii ñu toog ana nan la ñu xamee nan la borom bi subhaanahu wa laa defar nan la ko defaree lan moo tax ñun mënuñoo xóotal suñuy xalaat ci loolu moo tax doomu aadama li ko jege da koy xeeb fi mu ne li muy wuti sax di ci sonn bu ko amee moom lay moom lay moom lay xeeb moom lay doy dal fi mu ne ki gën ci nit ñi sax maanaam bu bu bu leen sore woon mën nañ ne ah waa sëñ bi macha allah buñ ko gisee am yéene yi mu ñaanal leen waaye buñ ko commencé jege rek. dañuy commencé sobantool loolu saa su ne li ñuy sàkku di ci sonn bu ñu ko amee moom la ñuy doyadal moom la ñuy xeeb loolu yëpp nag inspiré bi nga xam ne jamono jii mi ngi commencé judd ci ñun mi ngi commencé feeñ ci ñun moo ko waral lan mooy tax nag nit ki nit ki mucc ci loolu mooy li nga xam ne tey moom lañ tënk bayaan bi mooy patience mooy muñ maanaam nangoo dégg ko waaw lépp loo xam ne ma nga ca rek nga nangu koo dékku ndax doomu aadama su nanguwul dékku du ma sa jariñu dañuy wax ne miir bi dox diggante doomu aadama ak mer moom mooy muñ muñ mooy tax nga mën a jëflante ak doomu aadama yépp muñ mooy tax lépp lu la doomu aadama wax yitim nga mën koo dékk muñ mooy tax yitim natt bu la suñu borom subhaanahu wa taala teg nga mën koo àttan natt bu la suñu borom subhaanahu wa taala teg nga man ko àttan dafa am ko wax ne muñ su doon ne garab la njombaxtal la mooy muñ te fekk na ci jamono bi ngay muñ ay coono yu metti yu tar mu ngi ci sa biir nga di ko dékku ak di ko muñ kattan itam su doon ne garab la mooy muñ fekk na mais kàttan itam su doon ne garab la mooy muñ fekk ne ci sa biir xol junniy rangooj ma nga fa doomu aadama fi mu war a gën a mën a baalee fi coono yi war a gën a bare fi mu war a gën a nangoo mooy fi coono yi gën a bare gis nga àdduna lu la doomu aadama mën a teg ak lu mu la mën a def maanaam loolu du wëy ndax imma ki la ko teg bàyyi la fi mu jeex way laa yow nga bàyyi ko fi moom mu jeex mu natt ba jeex kon natt bi moom du wéy way laa yéen ñaar ñëpp ngeen demandoo fa inna mahal usri yusran inna mahal usri yusran moo tax àdduna bu mu metti mukk ba nga daw bu mu metti mukk ba nga caalit bu mu metti mukk ba nga bàyyi fi mu ne gis nga bukki xam nga kañ lay jooy bu reggee maanaam bu siiree bu suuree lay jooy ndax day xalaat ne xiif a ngi ñëw waaye ñun fi mu ne bu ñàkkee la ñuy jooy waaye bu ñu suñu boroom joxee ñu fàtte xeewal yi ñu war a ndamoo mooy xéewal yi ñu suñu borom subhanahu wa taala jox waaye natt yi nga xam ne dañ ko war a dékku mooy natt yi ñu suñu borom subhanahu wa taala teg mais saa yu ñu yàlla tegee natt ñu delloo lépp ci yàlla waaye saa yu ñu ko amee fàtte suñu borom subhanahu wa day mel na ne moom yàlla moom ngir ñu dékk ko suñuy loxo ci jafe-jafe la ñu gën a jekk lañu koy gën a jekkoo am na ku ma mas a nettali ci Serigne Saliou Mbacké ne mas naa toog bi mu toogee ci piliyaan bi ñu jékki-jékki rek gis mu jékki-jékki daal di mel ne lu wadd rek daal di sëgg su su daal di daal di ci suuf ñëpp jaaxle bi mu siggee daal di toog mu ne ah lii da xanaa jaaxle leen ñu ne ko waa mu ne lii mooy sujjootub sant waaw maa jékki-jékki rek yëg sa borom subhaanahu wa taala sant yàlla ci xéewal yi mu la defal moo tax yàlla boo koy sant day dem ba nga xam ne sax day jeex ci yow ba nga xam ne fi ne sax nit ñi yi ñuy def ak yi ñuy wax dootu naqari ndax sa lépp léegi dafa jeex ci suñu borom subhaanahu wa taala léegi dootoo xàmmeeti doomu aadama bi nga xam ne day wax ci yow lu baax ak doomu aadama bi nga xam ne day wax ci yow ab safaan ndax si lépp yow léegi da koo wékk ci sa borom subhaanahu wa taala xoolatoo nit ñi seen i jëf waaye lépp danga nga koo jox suñu borom subhanahu wa taala lépp da nga koo jébbal yàlla sa borom subhanahu wa taala waaw lépp da nga koo jég jébbal yàlla sa borom subhanahu wa taala moo tax góor góorlu day am solo bu baax a baax a baax ci nangoo muñ bu baax a baax a baax a baax nangoo dékku lépp loo xam ne rek yàlla suñu borom subhanahu wa taala maanaam dala ko dala koo euh, dala koo teg ndax damay wax ne maanaam taw fa muy jógee kawe na lool. waaye yàgg-yàgg yi ci say roni tànk rek lay mujj waaw dangay ngay téen rek di gis taw di ñëw waaye fan lay mujj ci say yi tànk damay wax ne lii nit ki di sonn ak nit ki coono yi muy am ci daj ci ci wut dara su ko amee it amut luy wàññeeku ci moom waaw lan lay yokk ci moom ndax mënoo def lu nit ñi deful avion ba ngay dugg di dem ak loo mën a am avion boobu lay dugg lay nit ñi di dugg di dem soo yoroon jàkk privé itam da ngay egg rek balaa ma deux heures de temps amaana ka dugg beneen place ba day egg. da ngay fanaan ci kër nit ñi dañuy fanaan ci kër da ngay lekk nit ñi dañuy lekk bu ñu génnee du ñu xam ki regg ak ki reggul kon nit ki amut lu la yàlla mën a jox maanaam ba nga wuute ak doomu aadama yi mënta ne li ngay li lay li lay eh, jaral ngay ñàkk sa dignité wala ngay bañ a def li la suñu borom subhanahu wa laa digal loolu yàlla bu la ko joxee amut lu muy dolli ci yow xanaa la mu war a dolli ci yow mooy ak mbaax ak dimbali doomu aadama yi nga xam ne da nga leen a tane. ndax yow xoolal rek doomu aadama bu feebaree waaw dañoo jëlle waaye nit ki rek bu feebaree maanaam dootul fàttaliku boppam maanaam fi ne boo ko tegaloon alal ak tane mu jël tane waaw feebar rek laa waaw nga xam ne euh, nit ki loolu rek war na cee bàyyi xel boppam gën a xamaat boppam gën a jàngaat boppam waaye gën di suturaal sa bopp ndax suturaal sa bopp mooy ngay ngay denc ngay denc lu bëree bëri ci sa bopp waaye am na ñoo xam ne fi ne bu problème dikkee rek ñu daal di saalit. bu problème dikkee rek ñu daal di fàtte bu problème dikkee rek jaxasoo dikkal leen ba sax ni ñu war a dundee wala ni ñu war a jëfee loolu yëpp maanaam day mujj deñ ci ñoom moo tax différence muñ ak ñàkk muñ am ñaari sabab ndax nit ki bu mënta muñ da koy dugal ci ñett da koy dugal ci goroy di da koy dugal ci doye di da koy dugal ci ñàkk xam boppam ndax nit ki bu nangut a muñ day xeeb li ko yàlla jox te du doylu ndax day jàpp ne maanaam suñu borom lii mu ko teg ci nit ñi la mën a jaar ngir defar ca boppam moo tax am na ñoo xam ne seenub nattu ñàkk maanaam seenub ñàkk nattu la ci moom na nattu la ci ñoom ndax da leen a yokkal ab safaan waaye dolliwu leen ak jaamu yàlla te nit ki waroon cee gën a xam yàlla waroon cee gën a jàng suñu borom subhanahu wa taala day dem ci ñoo xam ne amaana dafay wàccee boppam yéegal leen ngir lan ngir lañ lañ yor mu mën caa jot mbaa mu mën caa am te lan moo ko ci dugal mooy dem na ba nga xam ne doylu gi nekkoon ci moom gi war a nekk ci moom maanaam da koo seppi génnee ko valeur yi nga xam ne da ko waroon tàggat ci ci moom da koo seppi génne ko waaw waaye nag nit ki su su su nangoo muñ nag yooyu yëpp da ciy da ciy mucc ca lam koy dimbalee mooy daf koy dimbali mu nekk nit boo xam ne day góor góorlu day nangoo sant day nangoo muñ li koy yàlla suñu borom li ko yàlla borom bi subhaanahu wa laa jox itim da cay góorgóorlu bu baax a baax a baax mu mel ne it fan yi ci liñ ciy tënk rek fan yi gis nañ euh, réew mi réew mi euh, yii fi xewoon te mooy tànnum njiit yàlla dogal ay at a ngi nii ku ci nekk di ñaan jàmm ci réew mi ndax jàmm ci la lépp xaj ba suñu borom subhaanahu wa taala def ci taw féex ba it kim na mu mu falu mu daal di falu waxoon naa ko ma ne àdduna ñëpp mën nañoo jël mbir ne lii la ba cay waaj a jot jàpp ne lii mooy jot ga suñu borom daal di daal di jaarale fa mu war a jaarale moom moo tax euh, li fi xew bari na suñu boroom gis ngeen ni mu ñu ni ni maanaam ni mu tracé mbir yi xeex am na fi lu ne am na fi coono yu ne daj nañ ko ci biir réew mi ku nekk jaar fee. waaye bi tànn jotee moom ak bi bi bi dal jotee suñu borom wane na boppam ndax kii mu fal amaana ci ay diggante yu gàtt rek bari na ñoo xam ne xamuñu ko woon bu neen waxoon kii mooy kan duñ ko xam waaw ki mu ki nga xam ne moo fi nekkoon itim ay jamono itim bu jaaroon fii yaakaar naa kenn ci ñun ngir mu jege ko sax dina jafe waaye mbirum yàlla mooy doxee noonu te ku xool loolu rek xam ne àdduna bis bu yàlla sàkk dañuy jàngal boppam bis bu yàlla sàkk dañuy boppam moo tax képp koo xam ne jox nga ko sa lépp danga xam ne ci ci ci ci ci ci ci loraange rek la lay la lay la jubal la lay jugal moo tax wax naa ko ma ne nit ki yor mbub mu jag di jël mbub mi jagul bëgg koo jagalee mbub mi mbub mi jag ba jël mbub mi jag yàqee ko mbub mi jagul maanaam mun noo yor mètre bu cher jël mètre bu seerut maanaam di jël ci ci ci mètre bu so seer bi di ci xotti di def ci mètre bi seerut ngir bëgg mu defaru da yàq mètre bee rek waaye léegi du ma sa jag te mooy àdduna lu yàlla jagalut ab jaam mënu koo jagal kon bis bu yàlla sàkk dañuy jàngal boppam bis bu yàlla sàkk it dañuy wan boppam te lii fi xew fan yii rek war nañ cee xamee bu baax a baax àdduna gis nañ ci it ñu baree baree bari yii bi mu xawee am na ci ñoo xam ne dem nañ ba dugal ci sax yoo xam ne bokk ci bay commencé dugg ci mbirum kilifa di jaawale pas-pas ak li nga xam ne maanaam mbirum àdduna la donte que nag politique maanaam dafa war a nekk loo xam ne lu jub lay war lu jub la war a doon. defar réew rek moo ñu moo ñu ci war a tax a jóg waaye day dem ba nga xam ne yenn ndaw ñi sax léegi dootuñ xamati lan mooy warteefu kilifa yi ak lan mooy warteefu ñeneen ñi ci des dem ba boole ñaar ñoo xam ne bokkuñu te dafa am benn jàngat boo xam ne ñëpp war nañ ko jàngat mooy keroog bi nga xamee ni réew mi yëngu na ci mars mu jumul mars la woon sëñ taxa yebal kilifa ngir ñu dem indi ci réew mi ak dal te ku ne xam na ne. ci bis boobu noonu bu sëñ Muntaxa defut woon loolu réew mi naroon naa dugg ci guuta goo xam ne kenn xamut fan lay teere ji ndax yàlla nañu yàlla musal ci ay nit ku ci nekk di choisir ne dem tey man maay jël kee di jël ndax yu mel ne xeetu coup d'état am na fu ne tey xoolal am na ay réew yoo xam ne lan moo leen xañ lii ñu am ana Libi ana Syrie tey Libi heure bi waroon naa fekk tey mu bokk ci réew yi gën a développé lan moo leen ko xañ mooy bañ demee ba seen réew amatul jàmm ana Syrie ak yeneen ak yeneen ak yeneen mën nañoo citer ay réew yoo xam ne tey bi fa geer ba wàññeekoo ak bi fa coono yi wàññeekoo ci la seen réew commencé développé xool leen Rwanda actuellement bokk na ci réew yi nga xam ne Afrique dañ leen a naaw waaye xoolal at yi ci ginnaaw rek niñ meloon ci ay xeex yoo xam ne kenn xamut fan la doon mujj waaye tey ñun bu ñu demoon foofu lan la ñuy wax ci kee naan man maa war a jiite kee maa war a jiite ndax réew mi demoon na ba toll foo xam ne nit ñi sax dépassé woon nañ naan dañoo war a jiite président mais sëñ Muntaxa yebal kilifa ñu nangul ko loolu réew mi indiwaat ak dal tey dal googu noonu moo indi tey lii am kon nañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax yenn yi di bañ a dugal mbir yi ci loo xam ne bokku ci sëñ taxaa fee mu toog aajo jaam ñi rek la fa nekkal liggéeyub lislaam rek moo ko fa bàyyi jariñ doomu aadama yi rek moo ko fa bàyyi te ni mu téyee ñee it noonu lay téyee ñii kilifa du jeng bi mu ñëwee it dafa wane benn opinion bu am solo dafa taxaw ne dégg diglu taalibe yi néewul ne nañ dem votel kee wala nañ dem votel kee tey sëñ Muntaxa buy waxoon ne nañ votel diw ak koo mën a doon doo am ci dëkk bi dara nag bu ñu waxante dëgg bu ne woon tey diw la ñuy votel diw moom la ñuy votel waaye ku ci nekk daf laa bàyyi sa liberte nga xool kala doy nga tànn ko ba tànn jotee it ku ci nekk dem jël saw xob nga dugal nga tànn ka nga bëgg a tànn ba tànn ba jeexee it ña nga xam ne ñoo yor wàllu boobu noonu ne kii lañ jox réew mi kon day mel ne ca booba ba ba yëfi commencé ba fii mu toll ba yónni yàlla tey jii kilifa yi seen kàddu mësta jug ci di jàppale taalibe yi te di jàppale nit ñi te di jàppale waa réew mi ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu réew mi Sénégal ñu naw lan ci démocratie waaye ñu ñu raw ñu ñu naw lan itam ci xeetu civilisé gi nga xam ne mi ngi ci ñoom ak xeetu doxin bi nga xam ne dañ koy dañ koy doxee tey xoolal Touba tey li fi voté ren est-ce que est loolu mas nañ koo gis mësta am loolu fi ne beneen jàngat la man fi ma doon wotee gis naa ñoo xam ne ay magi jëmmu lañ waaye koor gi li muy métti métti métti dañoo taxaw ne fii ak voté wuñ duñ dem mooy act boo xam ne acte la boo xam ne posé waat nañ ko maanaam jàngale waat nañ itam ay jàngale yoo xam ne euh, réew mi am na fu mu war a jëm waaye itam am na askan bi itam lu ñuy bàyyiloo xel doomu a ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jiite ngir ñu taxaw ci loolu kon yooyu yëpp bu dee xew na ci yooyu yëpp bu dee am na ci te loolu yëpp di loo xam ne luñ mën a duut baaraam la lu luñ mën a luñ mën a waxtaanee la loolu yëpp nag war nañ cee war nañ cee war nañ koo xool te jàngat ci bu baax a baax a baax nga xam ne. parfois dañ ciy dañ ciy dañ ci dañ ciy dugg waaw ndax am ku mel ni sëñ Touba yombut waaw tey fu mu mën a nekk ak fu mu mënoon a doon maanaam ndam lu rëy lay doon ca ña ko am waaye ñun ñi ko yàlla dénk ay nañ fexe ba téye li ñu am nañ fexe ba sàmm ko nañ fexe ba benn doomu aadama bu mu dugg ci suñu diggante ak suñu pas-pas nañu fexe ba benn doomu aadama bu mu dugg ci suñu diggante ak suñu gëm-gëm. nañ ci góor góorlu bu baax a baax a baax a baax te defaat ci suñu kéemtalaay kàttan te defaat ci lépp loo xam ne rek maanaam mën nañ ko tey moytandiku yenn yi nga xam ne dañu ciy dugal wax naa ko léegi moytandiku yenn yi nga xam ne ay jubluwaay la ay jubluwaay la yoo xam ne maanaam seytaane rek mu ñu tey yóbbu ndax seytaane moom ay pexeem ba léegi maanaam yitteem mooy fexe maanaam bay bay bay bay yàq ndax ba mu ñëwee am nag njaboot ku ci nekk am na liggéey bu mu lay liggéeyloo kii mu ne ko an fexeel rek ba nga xam ne ndaw ñi ñi leen jiite ak ñi leen yilif nañ fexe ba ñooñu buñ nekkati seen kilifa bu ñu amati kilifa ñoom te nit bu amul kilifa rek day yomba ba max nit ki bu amul ku naan ko jaaral fee day yomba yàqal fi mu ne boo xoolee parfois xoolal réew yi am coup xoola réew yi am xeex lan moo ko waral mooy amuñu ku naan leen wax leen amuñ ku naan leen bàyyi leen maanaam ku ci nekk rek da ngay jékki-jékki jël la a neex nga def ko waaye Sénégal tey am na koo xam ne bu waxee am na ko ne ko bu ne ko bàyyi rek mu bàyyi ñoom fi mu ne seen yitte yëpp ak seen xeex yëpp ak seen i jëf yëpp mooy lan mooy fexe ba ndaw ñi bañ am kilifa fexe ba ndaw ñi bañ am ku ñuy diglu fexe ba ndaw ñi am koo xam ne danaan leen bàyyi leen ñu bàyyi wax leen ñu wax ndax fii ak loolu mi nga am rek liñ bëgg duñ ko am kon yooyu yëpp fi ne day day day mat di bàyyi xel di mat a xam li ñu li ñu li ñu am ak li nga xam ne moom lañu ñu suñu borom defal kon bu ñu dugg ci pièce boobu noonu ndax waxoon naa leen ko fii ma ne leen jëmmi doomu aadama mooy yàqal doomu aadama ndax seytaane ni mu nekkee seytaane noonu la amee ay ndawam yoo xam ne it ay liggéeykatam la di ko rahmatullahi wa barakaatu